donc euh, tey comme ñun nous nous voter aux tous les acteurs de famille autour du secteur de la santé qui euh, au niveau de la commune de Diamniadio euh, le médecin chef du district de Diamniadio les les infirmiers chefs de poste euh, les de les relais communautaires en général nous avons pour euh, chaque année euh, nous koy def au niveau de la municipalité des remises remise u médicaments, remise remises garab kon tey en collaboration avec structures sanitaires en particulier collaboration avec euh, le médecin-chef pour procéder à cette remise donc euh, remise pour euh, comme nous avons dit, de du lu Il y a un def incha allah te allons continuer à faire. parce que comme nous ko savons pas, nous avons nañ ni Euh, wérgu yaram santé euh, priorité la santé euh, lu ñu def jiital ci lépp lu ñuy def parce que jàpp nañ ko amul wérgu yaram amuloo dara da ngay wér ba pare mën a def leneen ak leneen ak leneen kon ñu xamee ko noonu ba tax na lu mën ni metti lu mën am aussi incha allah Euh, loolu euh, dinañ ko bëgg di def euh, duñ ko yàlla man loo kon tey woo nañ ñëpp ñu ñëw ñu tey kàddu xamal ñu fi teewoon tey yëpp mooy ñi lim léegi xamal leen ni def nañu génne nañu ren ci dotation bi nga xam ne bii sax xëy na daaw lañ ko war a 2023 la génne nañu montant de 10 millions. Nous avons vu que le centre de santé et euh, le poste de santé. Euh, euh, Lolo comme nous l'avons dit, 2023, Inch'Allah, 2024, nous sommes là. Ce que nous savons, c'est que nous avons prévoir ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait muy 2 millions kon du yag du yag ci weer yi di ñew inshallah allah dina leen woowaat euh, joxaat leen euh, ci garab yooyu ci montant boo xam ne bi mooy xayma bi ëpp na 10 euh, millions ñu ngi koy natt ci 15 millions kon incha allah jàpp nañ ni jafe-jafe bari na ci wàll woowu néew ji doole yi gis nañ ni fi mu ne pour ñu faju sax jafe nañu feeñ na ci waxtaan bi donc looloo tax euh, lu ñu ci mënti def rek ci wàllu wér yaram bi euh, xeeb nañ ko mais jàpp naa ne aussi ñaari dotation yooyu duñ ko amee au niveau ci poste de santé yi ak ci centre de santé yi defe naa ni dina leen permettre euh, li nu war a liggéey ci wàllu santé boobu ala ñu duñ matalul lépp nag te war duñ mën a matal lépp mais dinañ ci def ay jéego bu baax a baax

souvent dañu ñëwee loo nu am loo xam ne lii eh, dinañ ko jënd sax bi ay ticket kon déjà kooku problème la xuma na nak ngay jënd ay ay garab ak i médicament kon lo leen dimbalee rek eh, war nga ko xeeb looloo tax xam nañ loolu tax vraiment ñu def eh, effort bobu pour def cette première dotation tay ji ak prévoir benen dotation inshallah ci wèr yi di ñëw